en tant que infirmier chef de poste lii nga xam ni initiative bi nga xam ni mutuelle de santé bu jaxaaw caal yi jël nañ ko muy intégration di di profiter aussi ci occasion bi pour lancer un appel un cri de cœur ci population bu jaxaaw xamal leen ni leen mutuelle de santé mu ngi dox bu baax ñun ñi nga xam ni ñooy acteur de la santé ñi nga xam ni ñooy recevoir malade ñun xam nañ ni njëriñu mutuelle de santé ndax gis nañ ni ñu ci bëri doon nañ feebar bi toog ci kër yi te booba ñàkk moyen fajoo moo leen ko yóbbu te gis nañ ni léegi nit ñi dinañ ñëw à temps pour mën a faju à ba nga xam ni feebar bi ñu am bu jéggi dayo ba ñu war a mën a yegg hôpital ak feneen te loolu yëpp mutuelle ñi nekk ci mutuelle yi moo leen ko nekk adhéré ci mutuelle bi moo leen ko may ñi ci des bu personne vulnérable ñi nga xam ne dañu néew doole ak handicapé yi bu ñëwee dañ leen jël sëñ Ba ñu ngi leen di mais li ci gën a am importance mooy population bi xam njëriñu mutuelle de santé que ni li nga ci def bu bu da ngay sànni sa xaalis mais loo ci def rek ëllëg mën na ñëwaat si yow parce que boo cotisé boo fajuwul yaa ngi faj beneen doomu aadama boo xam ne xëy mu ngi ci bëri feebar mën na la dikkal fekk sa poos dara nekk loolu mooy njariñ bi ñëpp nañu adhéré pour que monsieur le président de la république objectif bi nga xam ne moom la dénk la santé parce que lépp lu ñuy wax di couverture maladie universelle ñun waa santé ñun lañ ko defal parce que bu nekkee ni nit ñi ñu ngi faju a am couverture sanitaire kon ñun suñu liggéey moom foofu moo fay fës ñu jàppale ba objectif 75 pour cent maanaam juróom-ñaar fukk juróom nekk ñu jël ci ñaar ci téeméer bu nekk balaa 2017 bee jeex ñu mën koo atteindre loolu ñu ci ñaax ñëpp pour ñu jàpp waaw yaa ngi ci quartier Diakhao quartier bu mag la bëri nit macha allah ndax di jàngi fréquenté poste bi ak yan feebar lañuy gën di faral di nemmeeku ndax ci xale yi la wala ci mag yi. feebar bu ñu jot dañuy defar suñuy rapport dinañ xam ñaata mois bi rek mën nañu xayma ni recevoir nañu ci li ñuy jot ñu ëpp loolu la jot fii ba di gën a kii nag gaa ça dépend ci période bi nga xam ne ci ñu toll nii feebaru sëb yi feebaru inspection euh, infection respiratoire ñu ëpp lu ñuy gis lu mel ni biir jaww ci mel ni grippe yooyu ñu ci bien ci mag yi comme ci te ñu ngi fréquenté bu baax parce que jigéen ñaa ngi ñëw seen visite prénatale góor ñi ñu ngi ñëw ci seen visite après bu ñu wasinee ba pare ñu ngi ñëw di wasin si di ñaan yàlla di ñaanal aussi. lancement la ci jaxaay pour waa jaxaw yëpp nañ leen di ci ci yéen pour mën a faju faju yomb ndax faju yomb kon boo amee opportunité boo mën ngaa faju te doo fay lu bari doo koy jéem jël jërëjëf